di seedeel mbooloom itam téye bi nga xam ni moom ngeen ma téye ak itam ak itam cofeel bi nga xam ni moo dox sama diggante ak yow loolu moo tax ak lu mën a xew damay ñaan yàlla toujours ñëw fekk bis bi toog boog toog ak yow ma ci sant bu baax a baax a baax a baax di wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax am nañ njort ni ci fan yi ni liñ fiy jàng ci ay kamil diko fiy jàng ci ay khatis khasida ak diko fi ñaan ku yàlla baaxee ba nga teg sa tànk ci dëkk bu sedd bi ak barab bu sel bi yàlla mën naa defar say say mbir am nañ ci yaakaar lu rëy rëy kon nag ñi ngi sant bu baax a baax ci occasion boobu di la ñaantam nga jottaleel ñu nuyoo suñu baay bu baax ba di sëriñ Muntaxa Bachir Mbakke xalif général kul murit di ñaan yàlla suñu borom bàyyi ko fi mu yàgg fi lool te wér moom itam suñu wayjóor la suñu waa suñu kilifa la suñu lépp la te gis nañu cofeel bi nga xam ne moom am ci ñun bëgguma guddal maa ngi koy maa ngi koy maa ngi ñaan nga ko sama nuyoo te ñaan tam di ko ñaan tam mu yokkal ñu mu yokkal ñu ñaan ndax moom jógu ci ñaanal Sénégal ñaanal Afrique ñaanal adduna bi yëpp yàlla suñu borom def fi jàmm balaa may daaneel kàddu gi sëriñ bi danaa la jox tam yóbbante suñu baay bu baax ba di kenn ci sëriñ Muntaxa di Mouhamadul Bachir Thierno Mouhamadul Bachir Muntaxa Daha taal léegi bu ma toogee rek li nga jëkk def moo laaj ma ko moom itam newoon na bu ma fi ñëwee naa ko jottalil nuyoo ak ziyaaraam ak ndokkeelam ci xalifa bu tedd bi. di wax ne alhamdulilahi rabbil alamin nee na mi ngi nuyu bokki fi teew yëpp te di ci jiital sëñ Mouhamadou Mamour Diallo mii toog ci wetam ak mbooleem délégation bi mu àndal. te nee na buñ ci tuddee turu Cheikh Diop bu kokki bii dafay yóbbaale ñi ci des ñëpp nee na Mamour mi ngi lay dalal jàmm nee ni nu ko daan defee at mu jot mu nekk nga defaat ko ren di la sant nag bu baax nag ci li lépp ci sa yitte sa pasteef sa taxawaay ak sa laabiir di ko rafetlu nag bu baax a baax ndax ne la ma la waxoon daaw jéeg rek moom laa lay feddiliwaat ren nee na ku la gis rek dana xam ni nit ku baax nga ku jaxasoog yow itam dana xam ni fu baax nga bokk ci sa ci sa jukko ak saw doxaliin ak sa mbaax loolee nag ñoo ngi ñaan sunu borom tabaraka wa taala saxal ko ci sa jëmm ji yàlla def itam Cheikh Mamadou Muntaxa ñële ñu mi nga ñëwal fii fasante ak moom coloré booba seen Cheikh Muntaxa si Cheikh Sidi Moxtaar mi ngi dund nga fasante woon ak sëñ Muntaxa coloré def ko sa wéyjur mu def la nag doom nee na loolee di wéy ba nga ni sii sëriñ bi jàpp loolu ci yow am ci yow ñeewente am ci yow it loolee doy na sëkk ndax nitu yàlla ku àgg ci moom foofu ndax ñoom talatunu àdduna de lu ñuy def rek ngir yàlla rek a tax ñu di ko def ndax dara nekkalu leen ci sëriñ bi nag foofee la àgg waaye nag mu ëmbal ak cofeel ak yërmande di lijjanti say mbir di ko topp di la ñaanal loolee nag doy na sëkk fa tabaarakalaw xel mu dal kon ñoo ngi lay santaat bu baax di feddliwaat nag sunu diggante ak yow ci kóllëre gi nu yàlla boole woon ñu fasante ko ak yow ca nga jàpp ko lool nag deseloo ci dara di la ñaanal nag sunu borom ta dimbali la ca sàmm la ndax kóllëre dees koy laaj boo lëgee ndax nit ñi li ci ëpp dañuy baaxoo bu nit nekkee ci barab bu fa bàyyi ko nu jàpp ni kóllëre ga daa war a wàññeeku ci boobee wala wala dafa war a jeex loolu nag as du ko def as gor daal ni mu war a mel daal mooy dafa war di sàmm kóllëre ndax bu dul loolu ànd boobee ñu àndoon yàlla taxut te ñaar bu nu àndee ca yàlla tax naa lillahi rek moo ciy mujj kon nag ab ànd na yàlla rek lay taay ko tax daan nañu yàlla boole dimbali ba fu nu fasante yow coloré mu doon ngir yàlla rek lu cay dolli ko doo caa dolli ko waaye daal as gor daal la war ci moom mooy mu gore gore nag yow loolu boo séqi nit ñu baax mu nekk ci barab bu fa bàyyi ko day ko nemmeeku te di ko toppatoo te di ko wettali te xam ni loole mooy mooy mooy li war ci diggante diggante nit ak nit waaye ko mul kule rek di jaxasoo ak moom amul solo ñoo ngi lay santaat bu baax te di la ñaanal yàlla yàlla kàttanal la defal la jàmm defal la tawféex defal la sutura nee nag ci kanamu seen Cheikh Diop mii ma di ko gërëm ndax moom mii doomi sëriñ bi la dib taalibeem ndax sëriñ bi daa am ci moom ak jàpp ni mu demee ci bokk ñëpp xam nañu ko waaye digganteem ak soxna Baali ñëpp it xam nañu ko muy jëmm ju baax nag ju am pasteef ju noppi ca mën jëf nag kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla dolli koo dimbali dëgëral ko defal ko tawféex mottali yéenam yëpp ñu ngi koy sant ci taxawaayam bu baax ndax li ko war lépp mi ngi koy matal ca ca boole wu ci dara jërëjëf jërëjëf Mbacke. salaatul lazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani ala mahim ma al hassa wa safar